voilà donc euh, mbokk téléspectateurs yi asalaamaaleykum nuyu nañ leen wala waat nañu leen sax ci jotaay bu ñuy am à chaque fois sànq gis ngeen ibrahim dafa ma dugal samay invité yi ma am ñoom moom tey dañoo ñëw rek commencé bu ñu sax mu rus leen trop mais ñu commencé ak def lu leen neex mais baal naa leen loolu. donc euh, comme ni ñu ko annoncé rek euh, depuis fan yu wees keroog gisoon ngeen ci pencum nawetaan ñu dal ñi nga xam ne mooy secrétaire généraux su su ASC e Dental muy Aliou donc euh, ci ci loolu rek euh, la ñuy la ñuy continuer yaakaar naa ni décor bi sax wan na leen lan la ñu war a mën a waxtaanee ñu ngi ci cëppaandaw li tey ñoo ngi waajal tey moo si topp wala suba ñu yegg ci final bi nga xam ne mooy finalu zone 12 ah euh, mu dox ci final bi diggante cadette bi final cadette ñoo ngi am Pastef ak ki nga xam ne mooy Bokk Jom mais final senior bi yaakaar naa ni moo ëpp ñi moo xam ne moom la intéressé muy dox mu doon derby boo xam ne day am muy ASC Dental ak ki nga xam ne mooy ASC Pastef ci loolu rek la ñuy dalal ki nga xam ne mooy SA Jaune moom mu nekk aussi tamit ki nga xam ne mooy gérer tout ce qui organisation de la finale monsieur Mor mbay mais aussi tamit ñu dalal ñaari président ASC kenn ki peut-être damay commencer ci enceinte bi muy Abdaziz président ASC Dental ak ki nga xam ne mooy Mouhamed Faye président euh, Pastef ginnaaw loolu Mor mbay tey ci yow laay commencer monsieur Mbaye nañ la dalal laaj la sa biir kër. ñu ngi lay fay bu baax a baax yow di nuyu nag waa Tivaouane Peulh yëpp cat ba cat bàyyiwuñu kenn ku toute la commune ah, parce que bu ñu waxee zone 12 A yamatul Tivaouane Peulh kese mais dem na ba Déni Géej donc dañuy boole nuyu ñëpp di nuyu les deux présidents euh, muy le président Mohamed Faye nekk président ASC PASTEF di nuyu aussi ki nga xam ne mooy Aziz Fall nekk président ASC Dental mais aussi di jël nuyoo bi di ko tegaat ci loxo le président la zone muy Paali jawne donc xalil loolu lañ ciy jot a waxagum. di euh, xam naa ne dina nekk kii xalil dina ñëw la muy président Mohamed Atmor nga xam ne tey mu ngi sekk YPR di la nuyu Ibou di rafetlu jotaay bi bu baax a baax. Mm-hmm. merci beaucoup Abdoul Aziz Mohamed. Mm-hmm. ginnaaw bi nga dalalee. bëri na nga yàgg Aziz moom yaakaar naa ne yéen ñett ñëpp ci biir kër ngeen ngeen nekk. Mm-hmm. Mohamed euh, ñu ngi lay nuyu aussi yow tamit di la masawu coono si biir aussi tamit euh, ci organisation production bi ñu naan la waaw jërëjëf euh, Ibou maa ngi lay fay nuyu ñu ma bokkal plateau bi le secrétaire général Mor Mbaye suñu euh, le frère Aziz Fall di président AIC Dental ñu koy nuyu bu baax a baax a baax di nuyu aussi le président de la zone 12A muy Paa jaw Diawne ak l' ensemble des délégués yi nga xamante ne ñoo seet zone ak les autres zones aussi yi nga xamante ne muy zone 11 ak zone 12B ñoom ñëpp ñu leen di nuyu di nuyu tey waa communauté Wampel Ndiaga ñëpp. rawatina monde sport bi rawatina li nga xamante ne mooy football ñu nawetaan yi ñu ngi nuyu ñëpp di nuyu joueurs yi di nuyu supporters yi di nuyu staff yi bàyyiwuñu kenn jërëjëf. jërëjëf euh, Mouhamed ci loolu sax xam naa ne su kanamee ki nga xam ne mooy euh, directeur des programmes TVT bi di ñëw rejoindre Sebas tamit quoi qu'on puisse dire euh, monsieur Mor Mbaye su World Control final dafa nekk final mais u tamit mu nekkoon depuis le début mu nekkoon collaboration entre. Euh, la zone 12 euh, et la TPTV moo waral jotaanu jotaayu waxtaan yu yu bëri mm-hmm. waaw di rafetlu collaboration bi parce que yombalal ngeen ñu ko bu baax a baax a baax a baax li nga xam ne mooy Arona ñu gën ko xam ci DJ Rona. lañuy coordonnel mais si loolu lépp dafa jaar aussi ci loxo Alsane mooy DJ Alou mais ci yow ci. consultation bi xaw euh, reportage ak euh, Khalil aussi ci ci caméra bi mo waral partenariat parce que yàgg nañu gis jour du football ñom Aziz football nañ ñoom Mohamed football nañ ñoom Paaline ainsi de suite mais tay amuñu ay archives yo xamantene ne lu dul ay photo ci lañ am tay même bu seeni do màggee tay ñu bëgg leen netali sax dañuy dem jëli ji photo te photo ñëpp xam nañ ne interprétation bi nekkul lu large donc lii dafay des ay images yoo xamante ne pratiquement suñuy set wala suñuy setaat dañ dem di ko di ko di ko gis kon euh, dañuy jaajëfalaat bu baax TP TV joueurs yi aussi xam naa ne buñ ko mënoon wax dinañ ñëw ba fii sant leen gërëm leen parce que li gën a yokk mu pousser la zone pour ñu ñëw à la TP TV dafay dal Mouhamed wala dafay dal Aziz. wala dafay dal yeneen président ASC wala yeneen dirigeant jox la téléphone grand photo ma mu am benn séquence wala dara tey bu ko TPTV di def kon gàcce ngaalaama ñoom te yaakaar naa aussi euh, di joro jorona daf ma ciy wax yu bëri bëri ay joueurs yoo xamante ne mooy daggaat seeni séquence di leen ko envoyé kon képp ku ci bëgg a dem def ji test wala bëgg a def leneen tey boo wanee image yooyu noonu dina gën a mën a agent bi pour mu mën a recruter kon dañuy jëfalaat waa TP TV bu baax a baax a baax a baax. merci beaucoup monsieur Mor Mbaye ci ci précision yooyu yaakaar naa ne tamit euh, mënuñu def euh, lu ëpp loolu parce que bëri na ay joueurs yoo xam ne ni ko DJ Lona di waxee rek suñuy envoyé seen DHL sax parfois ci ci chaîne de télé bi la ñuy jaar ou bien envoyé seen euh, lien YouTube pour ñu mën a seetaanaat seen i seen i match ci ci loolu rek ci ci ci match yooyu noonu xam naa monsieur Morbay comme ni ñuy wax rek dañuy dañuy xaar tuuti nga ñu ñëw ñu ñëw si président yi. waaw instant yi ñoom ñoo ñoom ñoo ay yow bëri na loo xam ne war nañ ko mën a waxtaanee aspect sécurité aspect billetterie présentation trophée yi gis nañ ko ñëpp trophée yi nga expliqué ñu ñu ñu ñu mën a demee aussi tamit les limites aussi ñu mu mu gën a leer. question partagée lay lay lay doon Abdoulaye Mouhamed saison bi tijji. dès na le début rek yomboon na ñu ne président ay see seen bopp. waaw waaw comme ni nga ko waxee rek yaakaar naa saison moom du tijjee yombul benn yoon parce que nawetaan dafa am loo xam ne da ko laaj bu baax a baax mm-hmm. te wax dëgg yàlla su fekkee dafa am foo xam ne da nga fa bëgg yegg. dafa laaj liggéey bu metti boo xam ne tey lu faree nga am yenn moyen yi pour mën ci def te yaakaar naa yenn moyens yi des fois su fi nekkul pour nga am ko day metti foog nga jóg pour jaayante ji pour mën ko am yaakaar naa daal début bi suñ nee nawetaan démarré na am na loo xam ne dina metti torop dina metti torop si président yi dinañ ko yëg bu baax a baax. Mouhamed. Hmm. nawetaan ci dina rek est-ce moom jarul sax. est-ce que du xaar ba waaw comme ni ko président Aliou Sall waxee rek defe naa ni euh, nawetaan moom yombul ci président bi rawatina ci zone bi ñu dëkkee nga xamante ne muy zone Tivaouane Peulh parce que par rapport aux autres zones yi nga xamante ne ay zones yi Dakar ñoom yàgg nañ ci nawetaan ñoom dañu am ay fonds dañu am ay revenus yoo xamante ne peut-être euh, dina leen permettre ñuy mën a gérer seen ay besoins mais fii daanaka lépp président yi ñoo koy def président yi moom xam naa ne moom saa bu ñu dee nawetaan tàmbale na rek bi day tàmbale. parce que les moyens financiers yëpp daanaka ci euh, ci poste président yi lay jógee peut-être amaguñu esprit boobu mais war nañ ko cultiver de telle sorte que les maisons yi nga xamante ne ñoo englobé euh, ASC yi ñu mën di cotiser ne serait-ce que bu vous tey benn quartier boo xamante ne ou bien ASC man ASC bi ma peut-être peut-être euh, ça fait quatre quartiers ou bien cinq quartiers <coughs> kër gu nekk tey y a de cinq cent maisons ou mille maisons kër gu nekk bu joxee mille francs rek c'est signifiant donc loolu rek mën na couvrir besoins yu bëri bëri yi nga xamante ne ASC bi ñu ngi koy def parce que amatuñu amaguñu culture boobu mais à chaque fois dama koy wax ñi nga xamante ne mooy les dirigeants am ñoo jiitee ASC yi di leen wax ni dañuy dem vers la population dañuy dem vers les maisons ñu faire leen comprendre que ni y a des ASC au niveau de leur localité pour que ñoom ñu mën ci jàpp jàpp bi tamit day dem jàppal ko jàpp parce que souvent ASC yi li leen mooy lan dañu concentré rek ci football bi duñ def ay sarsatal duñ def veillé ci sécurité koñ bi wala genre du genre yu demee noonu donc loolu da ciy bokk affaire aspect culturel aussi da ciy bokk su ko defee nga xamante ne waa koñ na ñoom ñooy approprier ASC yi su boobaa président yi dootuñu sonnati waaye fii moom kuñ ci fal président ku ne xam nga ni moom li lay xaar moom yombul quoi donc metti na mettiwul te plaisir aussi mi ngi si euh, di nga jàppale say frère di nga jàppale ñi nga xamante ne tey euh, bëgg nañ épanouir ci football bi loolu rek ngi ci bàyyi waaye ku ne xam na ni moom mbir yi metti na trop. Euh, Abdoulaye xam naa ne aussi day day ñëw rek instant ay questions partagées pour ñu gën a gën a gaaw Abdoulaye ci ban budget nga démarré sa saison tey bi nga ne voilà saison commencé na ci wàllum recrutement loo xam ne c'est extra sportif lépp ci ban budget nga démarré. waaw. tey am na loo xam ne <laughs> waaw bu tey ba ñuy soog a démarré wax dëgg yàlla xawoon na métti trop parce que dafa am foo xam ne foofu la ñu tàmbalee mooy tournoi interzone bi nga xam ne tey foofu amoon na fi te yaakaar naa bu ñuy tàmbali si sélection la ñu demee te sélection dafa doon loo xam ne tey dafa metti te it doon na leen équipe boo xam ne toog leen quatre ans ñëwuñu ñuy ñëwaat foog ñu wanewaat suñu bopp kon bépp moyen boo xam ne tey am nañ ko rek ñu fexee def ko ci tey bañ ko ci defee tamit yàlla dogal ne yegg nañ fi ñu bëggoon yegg parce que dental ñuy wax équipe bu mag la tey ku fi nekk rek moo la jur kon dafa war a mën a wane boppam ba moo tax dental wax dëgg yàlla li may wax rek dental budget nit mënu koo xam parce que amul calcul te wax dëgg yàlla am na loo xam ne dañ koy jaajëfal bureau bi bu baax a baax parce que dama naan. changement am na biir dental bu baax parce que tey dafa am loo xam ne président bi moo doon jël lépp di ko ràngu mais dama gis léegi changement bu wér-wér wax dëgg yàlla léegi grand yeeg si ñëw di si jàpp ak waa groupe officiel ASC dental ñëpp ñëw di si jàpp léegi ñëpp di contribuer si ASC dental moo tax yenn bi li wax rek lu kenn yenn day diis mais du ko ñëpp jàppooyee moo yof. waaw waaw am na loo xam ne nit mënu ko wax. parce que tey suñu taxawee ne équipe bu mag du si dirigeant yi wala dara mais dañuy xool si joueurs yi parce que football la ñu wax tey nag am na loo xam ne soo ko dañuy jëli ji su nee fàng kenn du ko jeex. amul fair play financier. amul fair play la yor. fair <laughs> xam nga tey dafa am loo xam ne dëkk. suñ la sasee nga nekk ndaw yàggoon sa ASC parce que olof Ndiaye moo naan ku jaar si taatu garab guddi xam la muy meñ da nga faa jaar bëccëg tey ñun dental président supporter lañ fi njëkk doon jóge fa doon président organisation jóge fa doon président commission sportif ba tey yàlla def na ñu doon président ASC dental mm-hmm. te suñu reer la bokkoon kon xam nañ yoon bi bu baax a baax xam nañ dental fan la war a jëm parce que tur bi yàgg na ASC bi yàgg na mais dafa am loo e parce que soo taxawee dañ la naan e IC. dafa e parce que trophée la hmm. ñun dental dañ ko bëgg jaay ba ñëpp dental ngi fi ci hmm. ñun toll hmm. trois ans d'existence trois ans d'existence ren ce budget financier dafa changé ou bien lan la demee noonu quoi wala fi nga doon teg sa loxo rek bon ku gis Pastef xam ni Pastef changé na par rapport ak année yi passé certes euh, année yi passé deux années yi passé yëpp doon ñu woon sax génn premier tour mun nañu wax waaye ren jàpp nañ ni bi ñu tàmbalee football rek gars yi xam nañ ni Pastef changé na parce que li Aliou Sall wax rek euh, nawetaan da ngay dem recruter ay joueurs aussi certes nag daaw ñu recruter ay joueurs. doon nañu am ñoom ñooy ñëw di ci jàpp bénévolement mais ren pour gis passé xam ni y a quelques yoo xamante ne tey moom moo porté ses fruits tey ba ñu mën a egsi final donc c' est pas anodin tey euh, du gratuit tey ñu egsi final am na loo xamante ne mm, mën naa ne joueurs yi wane nañ ko sur le terrain du point de vue cadets yi du point de vue seniors yi donc c' est une première aussi keroog paa yi mu lay fàttali ne ma lii gëj na am depuis 2016 si je ne me trompe pas ASC bi ko defoon muy ASC euh, euh, ñoom ñoo defoon loolu jëloon ko aussi. Mm-hmm. donc donc c' est une première fii aussi biir Tivaouane Peulh benn ASC def ko loolu aussi ma ci félicité waat joueurs yi bu baax. Mm-hmm. waaye financièrement moom kenn mënu la wax li ñu dépensé loolu moom li ay soxla d' accord naa seeg moom. Mm-hmm. parce que tey. sa budget ñaata la woon non mënu wax budget bi lii la parce que. bu ma bu ma waxee rek damay wax lu ma neex parce que man damay def ñeneen dañuy def seet. donc mënoo mënoo mënoo xayma. tey euh, quantifier euh, carrément ne lii nga ci def mais bëri na quand même bëri na euh, ku ku nekk ku nekk xam na ni nawetaan li ko yore yombul d'autant plus que dañ nekk ci zone bi nga xamante commune bi nga xamante ne te commune bi aussi du participer normalement ci subvention yi peut-être day joxe benn loxo rek te leneen bi à chaque année noonu la ñuy naxee waaye bi fois ñu ngi koy ñaan bu gaaw génnee koppar li nga xamante ne moo si des bien vrai que bëriwul mais na ko jox ASC e yi donc budget la moom nañ ko ba pare lu ASC yi moom la loolu aussi ñu ciy soo monsieur le maire Papis Diop mu jox ASC yi li nga xamante ne mooy seen subvention yi war na ci war na ci gàttu monsieur Mor Mbaye sànq maa ngi wax waxu fair play financier <laughs> dafa dafa indépendante par rapport ak finance am quoi euh, amuñu benn contrôle bu bu kii comme comme gars yi la ñuy wax nee na ASC Dental dafa def yëfu PSG ñoom recruter ñëpp def lépp nee na ñoom biiróo ñu sax ay zonal ak loolu noonu xam naa Mouhamed après di di loolu <laughs> noonu da leen par d' accord par rapport ak euh, texte yi nawetaan moom yaakaar naa ne bu fekkee am na lu ma ci ump tamit taxu koo taxu ko bari dañuy ñaan nag gën ci xam-xam bi gën ci yokk mais gisuma benn yoon fu ñu waxee waxu fair play financier nawetaan lenn lay bañ mooy ay détournement daal. détournement daal lay bañ.

100 jours 100 jours euh, au contraire. au contraire nous on encourage les ASC à aller chercher de très bons joueurs pour aussi nous mettre euh, une belle image à la zone parce que nous, euh, avons a parce que 4 ans ñëwul. avons 3 ans nan nga relever défi boobu ba remobiliser waat tout Tivaouane Peulh wala toute la population de Dental ñu ñëw s'unir autour de l'ASC comme ni nga wax mentalité bi changé na nekkatul président bi kese mooy def mais ñëpp dañ ci ñëw di jàpp nan nga relever défi boobu. Mohamed aussi non non dama koy dama ciy profité rek <laughs> Mohamed aussi dañ lay laaj naka nga supporter défaite yi gars yi daan dóor ñu gis passé deux ans deux saisons parce que mënul am une première victoire nga dékku loolu découragé di continuer de financer euh, nan nga dékkoo loolu ak aussi bi victoire bi ñëwee nan nga def et je vous signale que ce sont les deux présidents les plus disciplinés de la zone ah. ils font partie des plus jeunes présidents mais aussi des présidents les plus disciplinés. non kenn ki moom su su su nekk loolu loolu ñu dooraat ko comme ça, ñu ko doon def ñaata rek. waaw <laughs> ah, jërëjëf waaw comme sa question ni nga ko waxee rek am na loo xam yomb na yomb. ku toog quatre ans nag indi woon na polémique bu bëri gars yi taxaw ne gars yi du dañoo bëgg yàq ASC Denta fekk euh, am na loo xam ne du lu bët di gis wala lu xel di daj mais lu xol di yëg la dental ci xol yi la ne kenn mun ci dara ñenn ñi nag duñ naan réeroo amul mais ñàkk waxtaan moo amoon yàlla dogal na bu ñu defee AG bureau yu bëri woon na torop AG dental bu bëree bureau yi nii mosul am mu ngi soog a am mbir mi bëri torop mais ku nekk bëgg rek defar dental moo la taxoon jóg leneen taxu la woon jóg mais bëgg defar dental te it wax dëgg yàlla suñu première réunion ba ñu toogee ba ñu falee utiwuñu dara seetiwuñu dara lépp leen luñ bëgg nan la ñuy organiser ay teede débat nan la ñuy fexee ba ñëpp gis seen bopp si ASC dental tey loolu lañu jógee képp koo xam ne déggoon na eh, tey mere nga ASC dental war na mer nga si ASC dental dinañ dem seeti la waxtaan ak yow nga wax ñu li la metti si ASC Dental parce que ñun ay xale la xamuñu dara mënuñu dara mais des fois si xelu nit ñi la ñuy mottalikoo xam seen bëgg-bëgg parce que nit ku nekk rek foo nekk rek ay nit ñoo la fal mais da nga mën mais Mor Mor da ngay nangu. Mor mooy moom posé question bi. waaw moom waaw waaw Mor moo posé question moo tax. waaw ah, gis football. football euh, man dama doon koo xamante ne football dama ko jàpp foo la quoi foo la et war a ñëw kaf rek man boo gisee man comme gars yi ni ñu joxee euh, ni ñuy ni ñuy ni ñuy kiiwee affaire nu ni ñuy kiiwee nawetaan. je ne suis pas nag trop nawetaaniste quoi boo xoolee parce que man souvent sax boo demee le procès président doo ñëw seetaan ci affaire yi mais peut-être sama temps permettre ma ko à chaque fois may dem gisoo dem open press dama ko raté permettre à chaque fois may à chaque fois lu tax ñu relever le défi tamit lenn la mooy booy déggal nañ ma euh, su ma waxee ak ñoom dinañ ma dégg su ma leen orienté aussi danañ ko danañ ko suivre euh, ba ñu dóoree dóoraan à chaque fois dañuy def état des lieux waxtaan xool lan moo doxul lan moo dox nii lañu war a toogee ba ren ji aussi noonu la ñuy rafetee ba ñu renouveler renouveler bi mais def nañ re réaménagement ci bureau bi parce que ñu ci gën a bëri daaw ñu fi toog daaw ñu fi nekk ñu réaménagé waat bureau bi jël staff boo xam parce que manqué woon nañ staff mm-hmm. boo xamante ne tey dina mën a topp maanaam joueurs yi leen manqué nañ trop te loolu bokkoon nañ sax lu ci lu tax ñu doon perte match yi mais vrai amoon nañ ay quelques joueurs waaye ren bi yàlla dogalee ñu xool ossature bi li nga xamante ne doxu si ñu dem utuñ ci ko teg ko gis nañ ni porte porte na ses résultat positivement donc comme li ma wax rek football moom foo la agré ak kaf euh, loo xamante ne du ci dañ parce que tey lu ñu mën ta wax plaisir la ñun ñëpp dañuy dem mooy kii seetaan si muy fii football muy président yi ñun ñëpp plaisir lañ ci am parce que amul dara en retour loo xamante ne am nañ ko du dul plaisir bi parce que fayul quoi qu'on puisse dire nawetaan fayul bokkul ak championnat bokkul ak euh, yeneen yi yeneen xeet football yi nga ne ñu ngi koy def yoo xamante ne au da nga ciy gagné dara donc au moins fii yow yaa ciy génnee sa xaalis di si def donc Mor ci côté boobu daal xam naa ni noonu lañu xaare xaaree xaar yàlla rek dañu xaar yàlla rek ba yàlla egg si tey. xam nga ku mosul doon cadre finance sax mosoo génn. mosoo mosoo mosoo génn cadre finance. waaw première victoire mën naa ne première victoire sa fekkee ko naa ne première def naa ñu ko jeune stade Malika. waaw Malika je me suis dépêché ma ñëw bi ma ñëwee pratiquement euh, deuxième bi damay egg rek ñu dugal loolu chance la donc euh, ñu dóor 2-1 defe naa ne suñu dundee ay sa jàmbaar bi nga xamante ne 2-1 ay sa jàmbaar bi nga xam moom lañ dajaloon en demi finale ñu dajee leen finale yàlla defaat si ñu dajawaat leen 1-0 donc ñoom aussi non pas de mérité waaye première victoire ni ñu ko dundee rek mooy kontaan am mbégte ci joueurs yi félicité leen aussi nelaw nga quoi nee nga voilà oh, nelaw naa nelaw na comme li ma wax rek dama dama prescrire dama prescrire sportivité c'est-à-dire que man dara du ma génne ko fi waaw waaw supporters yi nañu bay ci yi supporters yi nañu roy si ñun quel que alpha bi comme ni ko mbër di waxee rek buñ toogee di signé contrat affaire day tàng jër waaye affaire ci biir arène bi lay xewee hmm. bu arbitre sifflé ba pare nag <laughs> foofu la affaire yi di leer waat ci dëkk bi. monsieur Mor bi yoon moom damay lay génnee fi nga xam ne mooy fi nga nekkoon quoi. ay ay SA mais en tant que ancien ancien acteur ci ci ci football. Mhm. ñu gis ñaari équipe ñaari équipe yi dem final. d'accord. Aziz ay joueurs confirmés ñi nga xam ne pratiquement soo waxee xam nañu leen. Mhm. Sila ñi ma wax tudd turam tey ñu ne ñetti nit xamuñu ko. dëgg la Eric pareil Mourou Mati si que Dantal la dëkk. soo waxee xam nañ ko Goraan xam nañ ko. Mm. est-ce que nga gis mu jëm ay joueurs yu confirmé. Mm. Mouhamed joueurs yi muy ñëw parfois de match en match ngay découvrir ay joueurs am. Mm. yow tey ban ban ban jàngat tey nga si nga si am ci final bi tey mu doon war a doon match lan c'est parce que dañuy jëm directement ci ci ci final bi c'est parce que il faudra que ñoom ñaar sedd bi ñu sedd ak fair play bi il faut ma xam quoi seen vraie nature. <laughs> <laughs> yaa ngi may dugal fu garaaw nag. xëy na mën nañ def analyse. mais nag xëy na mën nañu bañ a. nek trop à l'aise pour pour voir ci loolu mais tamit duñu daw question bi parce que tamit ñu ñoo opté ñoo fi il faut qu'on assume aussi nos responsabilités certes que ASC Dental amna ay joueurs yu mag yu confirmé yu yag jouer final mais tamit euh, bu ñu fàtte équipe bu amul leader fay nakari manœuvrer xëy équipe bu am leader mën nañ jël match yëpp wékk ci la par exemple ci la jouram nekkul ci jouram Dental fay doté su boba mais équipe bu amul leader pour nga mën a xam ne ci kii mooy jaar pour dugal bii bi dafay xaw a jafe coach nga xam nga bu baax lañ lay wax. dañuy gis ne Pastef amul tey jour boo wax nga ne kii mooy leader bi certes nag am nañ euh, nominé ci meilleur buteur bi bu am 5 buts. am nañ nominé ci meilleur joueur bi. am nañ nominé ci meilleur gardien bi am nañ nominé ci meilleur jeune joueur bi donc am na quatre jour yoo xam ne pratiquement nominé yëpp am nañ ci am nañ ci représentant tout comme ASC aussi. ñoom aussi am nañ quatre jours yo xamantene et ils sont à l'aise pour pour ces trophées individuels mais li ma la ci mën defal am analyse daal mooy bu dental xewé match bi Pastef dina ko dóor waaw bu dental xewé match bi mën nañu am Pastef dóor ko bu dental joxé ci match bi dinañ am match bu neex match bo xamantene kenn dootu ko mësa gis gisati ndax suis passif dama len xol ci koñ bi len dëkk ci koñ bi ci passif. bir passif dëkk. mën nañu jàppee tey benn star booy ñëw du fi jaar parce que ñoom succès lay nekk ci joueur man minutes Eric 90 minutes donc loolu dafa nekk avantage. dafa aussi challenge sur le jour de passif parce que si je parce que man tamit nekkul ne damay toppatoo kayité rek mais damay def des investigations sur les joueurs parce que je ñuy def euh, nomination yi on me demande euh, mon avis parce que si je ben joueur kessé muy le gardien nga xam ne na ci nominé meilleur gardien mo ci mës jouer final. final de ñi des ñep ce sont des novices ils jouent leur première finale. donc challenge lay nek ci ñom parce que tamit c'est pas donné à n'importe qui de jouer une finale de de de donc dafay nekk benn challenge ci ñoom. la maintenant pression ban côté la gën a mën donc. non pour moi la pression se situe dans le camp de Dental. parce que Aziz a ngi de bu jëlul coupe mun na jàppee dafa échec parce que mu ngi taxaw ci deux finales hmm. d' de passage mon na am ou coupe interzone bi ñu jouer ko le 30 inshallah, il se pourrait euh, waaw wóoragul mais loolu lañ jàppagum donc mu ngi ci ñaari final mais pression bi ci camp la ëppee pour man ASC Dental jëlul coupe

te wax dëgg yàlla na koy wax nee naa benn mas daal laa gëm ne sa mas yi moo si metti mooy man ak naataange bu Omar Diop bi sax xaw na def nii bu juboo bi mais man ak naataange mooy mas bi gën a metti te bi gën a bi gën a metti moom mas mooy mas bi gën a metti final bi non final bi final la xeebuñu ko comme ni nga waxee rek dental yaakaar naa si mas bi mu jógee amul kenn koo xam ne dalay xeeb parce que lenn la ñoo xamee teg bal bi football parce que dëkk bi yëpp si loolu la ñuy xaar dañ daal du ñu supporter seen supporter lenn la ñuy xaar mooy que dem nañ stade teg neen bal bi ah dental dugal na zibi la ne ah, loolu la ñu xamee kon nag loolu ñu ñu xamee amul lenn loo xam ne tey dinañ si teggiwaat suñu tànk parce que bu ñu fa jógee ba tey amul lenn loo xam ne teg nañ suñu tànk ku xool ne xam ne ñun ay compétiteur la ñu am du ñoo am ay compétiteur ñoo xam ne football moo leen ñor parce que benn jour man Mouhamed gis nga li yàlla di dogal toog nañ stade di si werante ak Pape Sall toog ma naan ko non samay joueur ak say joueur parce que ma ne ko sama onze yëpp gëmuñu lenn lu dul tey li wax rek sas bi su ñun la nekk xam nañ ko mais nit amuñu si benn pression gëm-gëm lu ñu am ne ki am gëm-gëm pour départemental tey suñu vision foofu lu ñu ko teg mais nekkatul final bi mais adversaire bi dinañ ko jox cër bi moom. mais du doon échec Abdou Aziz ña bon xam tey nga ñëw ba final ñu ne voilà xamuñu yàlla def leneen du doon du doon échec yow en fond de toi doo ne bon. non xam nga tey fi may toog ku nekk ak sa ngëm-ngëm aw ma xel ñaar moo tax li si des mënu cee wax parce que nit moom li nekk sa kanam rek nga mën a wax mm. mooy que ne ndam rek laa gëm. te ndam rek laa bëgg suñu borom defal ma hmm. defet nag bu ñëwee suñu borom mooy xool nit ki nan la siy doxee ak nan la koy gérer ak lan lay defaat ci moom da nga gis nit naan diw su ma daanee wala su ma gañee damay xaru ji suñu borom def ñu gañe la mais xol boobu wala xol xaru ji sax du nekk si yow loolu suñu borom moo koy def mais gëm rek lu ñu am te gëm nañ ne incha allah yàlla dinañ may na Euh, Mohamed, le aborder final donc sans pression euh, ah, dental suñu nous gagnons. mu ñu dental aussi challenge donc instant vous avez réussi votre pari. waaw je nga la parce que xam nga ku vous victoire. Euh, egg ay quart de finale finale finale d'abord. Euh, defe naa ni pression moom comme Mor ni mu ko waxee ñoom Aziz jàpp naa ñoom ñëpp pression parce que euh, tey bu dee équipe bu mag comme Aziz nu mu ko waxee rek ñoom yàgg nañ leen suivre man newoon naa ko defe tout au début maa ngi ko doon wax ñun ñaar final la ñu bëkkante te yàlla dogal na loolu tey euh, ñu mbëkkante ji finaal te booy aussi sama booy yi nga xam ñoom ñooy joué les joueurs comme Mor nu mu defee analyse bi defe naa ni noonu la ñoo xamante ne mosuñu joué final da leen di jaral lu ne. ci biir terrain bi ils vont mouiller le maillot ils vont se sacrifier pour que benn final boobu wóoratul ndax dinañ dem final joueurs yi nii di jouer xam nga affaire yi moom nawetaan dafa doy waar dafa garaaw gis nañ ci équipe yi daaw équipe yi nga xamante ne damoo nekk ay final ak yooyu a teel a toog donc affaire benn yoon nga koy jouer benn yoon nga koy jouer day metti marché bi du yomb quel soit alpha euh, dental équipe bu mag la nangu nañ ay joueurs yu mag la ay joueurs yu bien la yore waaye affaire day doon ci mental yi après tey comme qui ni mu ko waxee am na lu ñu may lu tuuti rek ñun moom lu ñu may ñu exploité xam naa loolu. aussi Mohamed. waaw xam naa pression bi day nekk si ci camp ñoom Aziz par rapport ak ancienneté bi. Mhm. recrutement avec lépp mais aussi tamit. Mhm. yéen pression bi. pour la première fois ngeen ngeen joué finale. Mhm. est-ce que tamit du joué seen mental quoi pour la première fois. surtout surtout sax mu war a indi ñaari équipe. Ah, ci benn bés mu war a est-ce que tamit loolu. mais mais xam nga man benn dudd am quoi. non non non non dudd am man jàpp naa ne quel soit alpha daal pour dina dugg si biir euh, biir euh, Pastef incha allah loolu gëm naa ko te mën naa ne euh, booy ni ma leen gisee ils sont forts actuellement dans leur tête parce que football aussi wala wala sport boo koy def sa mental day baax ba pare boo amul mental bu baax bul espérer gagner dara te jàpp naa ni ni ma leen gisee nii ils sont déterminés ils sont engagés. de telle sorte que ñoom jàpp nañ ni coupe bi ñoo ko war a indi aussi comme dental ni mu prévoir moom planifié nii euh, ñoom jàpp nañ ni coupe bi daa war a ñibbi biir dental ñun aussi noonu la ñu planifié jàpp ni coupe bi daa war a ñibbi bi euh, Pastef euh, parce que football la rek ah football la te une finale ça se joue une fois donc le jour J moom xam naa ni football bi buñ bëree bal bi match bi dana neex ñi ñu ñi ñaan yàlla nag gars yi ñëw en masse aussi ñëw supporter si seen équipe yi. muy de côté de dental di suñu côté aussi ñoo supporté stade fes dal nga xamante ne final la boo xamante ne ñaari final yi fi jàll yëpp duñ ko duñ ko umpale dara donc loolu laa amoon lu wax ci côté boobu di wax ni daal ASC Pastef pare nañu tey pour football final bi luñ ci yàlla may tax ñu xam ne loolu la aussi man li ma yàgg di wax rek booy dem uti ji danga ñaan yàlla mu may la waaye bu la yàlla xañee aussi nga xam ni xañ na la nga nangu ko loolu mooy esprit sportivité Mouhamed Abdou Aziz da ngeen da ngeen da ngeen ñu taxaw ni tuuti rek ñu ñëw ci ci monsieur Mbaye euh, yaakaar naa ne euh, waxtaan bi suñu waxee final aussi tamit on parle de l'organisation euh, actuellement monsieur Mbaye moins de pratiquement 48 heures pour ñu pour ñu dem ci ci final bi en terme d'organisation tey gis nañ coupe yi trophée yi rafet na mais balaa ñuy joxe trophée c'est parce tamit fi ñu jëm stade lañu jëm am jët nañ fa seetaan ay final yoo xam ne pratiquement da ngay ñëw taxaw di taxaw di seetaan yan changement mooy am ci ci ci final bii nii. waaw Khalil dañuy kontaan ci question boobu am na ay final yu fi joto a romb euh, demoon nañ seetaan yi participer nañ ci parce que aussi sunu ay collègues lañu sunu ay xarit lañu sunu ay doomu ndey lañu muy waa zone 11. Euh, de passage di leen euh, jaajëfalaat bu baax a baax ci récompense yi nga xam def nañ ko à notre à notre endroit tout comme la zone 12B aussi defal nañ ay récompense seetaan nañ seen final mais ñi ñëwoon ñep dinañ war a gis ne am changement surtout sur le côté des des supporters moy amna ñaari tribune supporters yo xam doon nañ ko gis euh, ci stade bi tribune yooyu aussi delloosiwaat nañ ko indiwaat nañ ko installé nañ ko tay kon ku dem stade suba dina mën a gis ne tribune supporters yooyu wat nañ ko aussi il y a 5 tribunes VIP yo xamantene euh indi nañ ko yo xamantene parrain bi ak euh, les invités euh dinañ fa toog mais aussi dina am euh, une partie boo xamantene ça sera réservé aux amateurs yi nga xamantene ou bien aux supporters yi nga ne bëgg nañ ñëw toog ci tribune loge bi mm-hmm. waaw loolu aussi euh, amna na mm-hmm. di assurer ñëpp nak bu ñëwee ci stade bi sécurité dina fa am ba mu doy sëkk parce que euh, actuellement on a cent éléments de la police yoo xam te ne dinañ ñëw euh, le jour J incha allah. Mbaye ci aspect sécurité boobu noonu xam naa dañ fay dañ fay taxaw nii quoi euh, mu nekk ñaari kii bi yoo xam pratiquement ci comme ni ñu waxoon sànq rek benn kër la mu nekk ñaari néeg forcément que dinañ tase ci cour bi cour bi mooy fii fi ñuy jógee Tivaouane Peulh war a and dem dem stade fekkante encore encore stade disposition loolu lay donné. waaw xam nga euh, ASC nag euh, comme li ngay wax rek man dama une ASC parfois quand il n'y a pas un désordre ce n'est pas une ASC parce que supporter la kenn mënta mobiliser rawatina supporteru nawetaan segam boo xoolee sax euh, ci équipe yi mag yi da nga gis parfois ñu ne la aj nañ li ci comme Marseille par exemple c'est équipe da nga gis li ci ëpp supporter dañuy dem. L'équipe est déplacée sans supporter parce que les supporters def ne comprennent du comprendre moo canaliser les supporters gën a mais man de mon point de vue personnel je doon man la damay côté passé dama ko côté itinéraire Mais dental itinéraire mais ne xëy na dëkk bi tollagul euh, foo xamante ne dinañ mën a itinéraire pour yëpp comme ni ko localité di défaite. mais aussi jàpp les deux ASC il y a des membres euh, et des supporters civilisés conscients yoo xamante ni jàpp nañ ni xëy na buñ defee lu ñaaw defuñu ko kenn seen bopp lañ koy def ndax ka nga koy def tey ëllëg moom ngay àndal bokk ak moom bis bi wala bokk ak moom bi wala bokkaatam moom benn jotaay kon jàpp naa ne xëy na loolu du ci du ci am mais bu ñëwee au niveau de stade ce qu'on a prévu pour le moment euh, mooy euh, supporters yëpp dañuy bokk bunt bu ñuy duggee mooy porte porte centrale bi. porte principale bi. Euh, waaye porte principale bi ñëpp fa la ñuy duggee. léegi boo tourné sa gauche bi nekk ci kaw tali bi soo tourné sa gauche léegi foofu le dental moom boo prolongé ci deuxième euh, ligne bi foofu la ASC Pastef moom équipe ASC Pastef mooy duggee bunt bi nga xamante ne moo féete ñàkkurab euh, dental moom mooy duggee porte bi nga xamante ne moo féete safko mm-hmm. loolu lañ prévoir pour le moment mais nag il y a des choses yoo xamante ne pour gën a mën a taaral bés bi euh, que ça soit du côté de passif que ça soit du côté de Dental ñun dañuy def loo xam te ne dañuy jaay jour bi dañuy jaay le final équipe bu ci bëgg aussi indi benn bus euh, joueur mu dugg ba ci biir aussi on va te le permettre mais dans ce cas bu bus bi duggee jour yi dañuy jaaree kon ci porte mais courante bi moo xam passif le su boobaa moo xam dental la moo xam accès direct day ñëw rek accès direct sur la pelouse bu dee Pastef dafa bëgg un indi bus bu ñëwee dafay dem direct ci police bi bu dee dental dafay indi bus aussi dafay def direct dem ci dem ci police bi au cas échéant kenn indiwul bus porte respective yooyu ñu wax ci la ñuy duggee. ci ci ci ci loolu euh, ba ba tey par rapport ak nee nga dugg stade bi kii mais balaa ngay dugg stade foog nga am benn billet bu lay duggaloo stade de. waaw billetterie bi pour le moment ce qui est ce qui est retenu moo nekk. Euh, 1000 francs moy accès stade bi euh, bo ñëwé jënd 1000 francs am nga accès dem tribune supporter su féké né da nga jënd un pied de 2000 am nga droit dem loge. Ah, moy fañ doon wax 1000 francs moy gettu bay. waaw 1000 ah, tribune découverte non bu avez wax sa gettu bay wax tribune ah, découverte parce que stade am na tribune découverte. tribune <laughs> couverte eh. daf moy dougal eh. tribune couverte moy nek 2000. léegi am fenen fu ñu VIP prestige mooy fi nga xam te ne moom lañ fa teg euh, bâche bi nga xam te ne mooy nga xam ne da ngay toog ci biir mecc courante bi foofu aussi dinañ ko jaayee à 4000 francs

moy ASC Pastef machallah dafa indi ñaari équipe cadet ak senior final ñu jàpp xeyna ñi sétane ci cadet bi li ci ñom ñoy ñooy sétane senior bi motax ñu réserver leen ci deuxième turbine bi léegi ñu xol né dental ak bokk jom bokk jom dafa indi équipe cadette dental dafa indi équipe senior ñom ñom moom parti bi nga xam ne am virage bi ñom ñom moom parti boobu mom waaw bu équipe bokk euh, supporter bokk jom supporter seen cadet ba mu jeex ñun dañuy wàcc tribune bi dental yi soo ko yéeg ci kaw ci kaw tribune bi c'est ça qui est prévu pour le moment. Mm-hmm. voilà donc donc donc ci loolu mais aussi tamit aspe aspect sécurité bi euh, c'est que am na ñoo xam ne ñu bëri dañu naan final bi final optation la aussi da ngay da ngay wax ñu ne ñoom ñaar derby la donc. kii la tey yan garantie ngeen ngeen mën a joxe nit ki mën na sangu ba seet ànd ak doomam dem seetaan yi. moo doon une garantie man sama soxna ak samay njaboot yëpp dinaa leen jël man personnellement ñu ñëw seetaan si final bi parce que tamit amuñu woon chance ñëw seetaan yeneen match yi dinaa leen jël ñëw seetaan si kon su ma fa doon njortu violence wala ma fay njortu leneen lu noonu rek kon du ma am sañ-sañ jël di leen fa indi mais incha allah rabbi dinaa leen fa indi ku mu neex sangul ba seet. bul sox sol yére bu ñuul wala bu leneen Pastef am na blanc dental am na blanc na ñëpp sol tout blanc bu leen neexee kenn ci incha allah. allah rassuré na leen kàddu kàddu moor yi loolu ngeen xaar ci final aussi. waaw final de li ñuy wax rek fête la. pour la jeunesse. kon tey équipe boo xam ne tey équipe bu mag la. surtout dental ñoo war a gën a mën a joxe bon exemple lay wax mm-hmm. te xam ne suñu ay dëkkaloo lu ñuy fubal te li may wax benn jour dama ko wax ma ne leen fii li tax tension bi bëriwul si suñu zone bi ñun président yi ñoo doon benn mm-hmm. moo tax tension bi bëriwul parce que koo si gis rek jox na moroomam cër cër bi ko wax du ñuy toog waxtaan kaf foore léegi tey ñun si booy war ñoo mën a jël exemple suñu ñun parce que man Mouhamed du ñu mës a réeru Hmm. waaw sport mooy loolu hmm. duñu fi suñu mandat yàggul hmm. quatre ans duñu fiy jóge keneen ñëwaat mais lépp nañ ko teg ci fair play xam ne lii feet la feetu Tivaouane Peulh la feetu tamit zone douze A la final bi dafa woon war a doon final boo xam ne dafa réussir parce que man chaque jour dama koy wax des dinaa tal sama ASC mais des fois damay bëgg zone bi réussir ci lépp parce que su réussir rek Tivaouane Peulh réussir na ci lépp loolu daal laa xam ne maa ngi koy lancé di wax fair play ñëpp jàpp na ñoo bokk ndey ñoo bokk baay. Hmm. ñuy jongante ñoo ngi si biir terrain ñu bàyyi leen que le meilleur gagne. Hmm. ki dàq football nag yàlla na ko yàlla may ndam. ay dañ na ne ñaanal da ngaa pare rek. non daa ñaan ba ne ko amit boo ko amit ba pare amit amul problème. ma xamal eh. tey. Euh, monsieur Mor Mbaye lu mu wax disposition yi li ngeen li ngeen li ngeen dégg ci moom waaw ku xam zone 12A moom defe naa ni dès le début euh, ñu ngi jël seen dispositif sécuritaire indi ay jeunes yi doy ak yooyu noonu donte loolu mënul ñàkk mais dañu ñaan benn safaan benn fa am rek. Hmm. yàlla boo fa benn xeet jóg walla benn saaga wala benn yëkkatinte dënd bañ fa jóg. Hmm. loolu la ñuy ñaan <coughs> donte supporters yi comme moom ñu ko neex ñu maîtriser. waaye dañ leen def appel ñoom ñëpp muy supporter ASC Dental di supporter ASC Pastef mm-hmm. ak ñeneen ñi nga xamante ne aussi dañoo ñëw nii rek pour seetaan si nga ñu dox si fa jàmm euh, <coughs> ko defee yàlla may ndam ki nga xamante ne moo war a jël ndam li yàlla may ko ko euh, su ko defee daal ñu ñibbiwaat ci jàmm parce que mën naa ne euh, tamit seen dispositif bi fële baax na au niveau de l'État baax na mais aussi ni niveau de Tivaouane Peulh nañ ko sóoraale moo loolu laay def appel à la zone président ak secrétaire bi au niveau de Tivaouane Peulh comme ni nga wax dina am solo dinañ jéem a xool ñu ASC Pastef ban itinéraire la ñuy jël ba dem stade defe naa ne itinéraire bëriwul bëri na mais am na ay chemins yoo xamante ne mun nga fa jaar parce que euh, ASC e Defar aussi jaar yoonam même bi ñu ñib si aussi même chose ñu jël dispositif yooyu de telle sorte que parce que supporter kenn mën leen maîtriser mais <coughs> su ko defee la gendarmerie ñu alerter leen pour que après la fin du match ñu mën a sécuriser au moins au niveau de Tivaouane Peulh comme que stade de jeu yi dinañ dinañ sécuriser foofu su ko defee ku nekk mën a ñibbiwaat ci jàmm def naa ni comme ni ko Aziz waxee léegi rek fet na final fet na dañu war a ñëw foo kafre xam nga euh, ku nekk euh, ñaanal ñaanal sa morom su ko defee affaire bi ci biir terrain bi la que le meilleur gañ su ko defee ki gañee xam ni euh, moom footballul loo xamante ne lu extraordinaire la moo tax mu gañe kooku ki nga xamante ne aussi moom la ñu gañe aussi mu xam ni jàpp ni kee da ko war a gañe rek moo tax mu gagné ko mu félicité ko aussi su ko defee ñu ñibbisi waat ci jàmm di woowaat aussi bu baax a baax a baax supporters yi leen ñaaxaat ci loolu quoi parce que defe naa ni bu dee président yi wala dirigeant yi amuñu problème boobu problème bi ci niveau supporters yi lay situé wu kenn bañ a provoqué kenn dañ ñëw pour stade pour football wala nga supporter sa ASC ñëwal nga football si tout tranquillement ñëwal nga supporter sa ASC tout tranquillement bu match bi jeexee nga ànd ak jàmm Euh, su ko defee ngeen ñuy savouré seen victoire ñii aussi euh, jooy seen défaite waa xam naa ni bu yàgg donc euh, noonu lay demee football la football la parce que warul mën a am violence quoi man moom je bannis la violence ku ma xam-xam ni du ma nit ku violent donc loolu laay wax tamit sama ASC sama supporter dinaa leen gën a ñaaxat wa toog ak ñoom waxtaan dama doon wax sa Aïs Fall pourquoi pas mu woo ay supporter am ci open presse peut-être lañu mënoon profité man ma ñëw ci open presse Aïs Fall ñëw wax ak supporter yi wax ak joueurs yi moom aussi mu def euh, de même ci ci ci nga xamante ne mooy ASC Pastef wax ak supporters yi ne leen lii match la rek mënul weesu match après match bi ñun ñëpp ñoo dëkk ay dëkkandoo lañ donc euh, na ci jàmm am rek ci final boobu Abdou Aziz ñu xam ne bon joué nañ joué nañ match ci final bi ngeen koy ngeen koy waajal actuellement euh, ngeen ñëw ñu nekk pratiquement à moins de quarante huit heures de la finale tey. yaakaar naa ne yëpp lépp yem na seen côté pratiquement su ma nee lépp yem na xam ngeen fi may waxee am day xam nga rek damay bëgg mu leer parce que finalement li ñuy wax li ci nekk bëri na te am na loo xam ne jours yi la mën a nekk am na loo xam ne avant mais wax dëgg yàlla li nga xam ne tey war nañ ko motale muy wàccaay bi ñu si bu baax a baax waaw nit moom li ñuy wax fii ak footballoo ba pare rek jàppal na pareegu. mais Ablaye tey ci ci ci wàllum final boobu noonu ci aspect ci aspect bi nga xam ne tey moom la ñuy xaar préparation préparation joueurs yi da ngay da ngay assister da ngay assister entraînement dem nga assister dem nga assister entraînement deuxièmement aussi tamit ci nga xam ne tey mooy volet li nga xam ne tey pratiquement mooy organisation finale bi wàllum regroupement bi heure bi ngeen demee saat je pense que tout est déjà planifié sànq Mor Mbaye wax na ko wàllum itinéraire xam nga am na ñoo xam ne sax dañ leen tànnal parfois itinéraire bi ñuy jaar loolu jarul sax nga yóbbu sécurité paaka bi moo koy moo koy def. <laughs> waaw comme ni ñuy wax rek comme ni daan rek ñun na comme comme match ba ngeen di wax mais raw wax parce que. Hmm. tey dama koy dalalee xelu président Palick Diawne li ko wax final bi wax dëgg yàlla na jàpp ne final buy gën a réussir si final yi lay bokk parce que su fekkee wàllu mobilisation non dental pare na xam naa ne pare na bu baax a baax te dëkk bi ñëpp a koy waaj tey nag am na loo xam ne lancement la woon mais firma bi. est que xam nga ni Pastef ni mu lay waajal sànq Mouhamed moom avant nga ñëw moom koy dégg. waaw loolu day am xam nga tey. li ñu mënoo wax a wax a wax su la neexee moo lay ëpp supporter jour mais rek paa ñëppay nekk. ci hmm. biir terrain bi moo lay dominer suñu ji bi moom moo ñibbee nag coupe rafet bi. waa loolu am na xam nga tey man d'accord naa ci benn côté dafa am lu ma xam am lu ma xam am lu ma mën am lu ma mën tey li nga xam ne tey mooy sama devoir mooy mettre leen dans les condition conditions d'abord. Aziz man Aziz Aziz. li si des. يا كارنا سيبيت يا نبيلا واحد بيجي على نون نينا ساعدوا من سنو خالص خبنا أنا ساعدوا من سنو خالص بس بنيو دوجي رك دينا خبنا واحد بيجي على دنتال مو مفي دنتال بنيو خالص نيونا نون سيا كارو باه باه محمد نوم ساعدوا من سنو خالص أليس بقى واحد نتاعه ماي مارستان من سنو خالص نوارو جوي نوارو جوي مم أليس إنسان مم جاكم أنا du ma sànq kii yooyu kii yooyu du ma ne la du may métti ba ñibbi. bon <laughs> bon affaire affaire football la ay moom xam naa ni comme li mu ko waxee rek ñoom pare nañu ñun aussi pare nañu wa ah. ñun aussi pare nañu ASC euh, Pastef pare na tey pour euh, jouer final bi muy ci cadet yi muy ci senior yi defe naa ni euh, gisuñu dara lu dul dem football yi tey bu doon suba suba la mën naa ni mën nañ dem football yi match donc euh, defe naa ni dara yàggatu fi à moins de 48 heures defe ni lépp ci terrain ba lay xewee nag comme ni ñu ko yàgg di waxal football bi yëpp na doon ci terrain ba bu ñu fa jógee nag ñu xam ni football bi jeex na. Hmm. ku ci nekk euh, nekkaat say yitte. Hmm. Euh, defe naa ni match bi du yomb ñun xam nañ bi yomb parce que kuy joué ak ASC. non mais dental moom instant match bi nee moom ñoom plié waaw mën mais mais xam nga tey li may plié. am na mooy mooy loo xamante bi ne woon <laughs> lu mu métti métti coupe bi sama néeg lay fanaane te affaire noonu la mujjee de. Ah, waaw waaw mën na nekk mën na nekk la mais lambatu la rek ah, loolu yëpp ay bataille la mais quel que soit alpha nit mënul a assuré te ay lu mu yore équipe bu gën a extraordinaire ci monde bi sax mënul a assuré. loolu ci ñaar. tey da ngay ñaan mu dem si yow. non non man la ko yéene man mënu ma la wax ni si non ay sa bopp laa ko yéene nag ay bëri ay bu ma jéem a kii mais mais mënu ma la wax ni coupe bi fii lay faral wala fee mais jot naan daal coupe bi sama néeg lay faral incha allah loolu moom jot naa ko. ay coupe bi day fanaan sa néeg. waaw waaw xam nga adduna moom la ñuy wax kenn du dem ci làmb ja naan damay daan. Eh. ñu ko koy nangul bu baax a baax di wax ne wax dëgg yàlla wax naa ko sànq waxaat naa ko aussi daa ko fubal yàlla na la yàlla may ndam parce que xam naa ne mbir mi lépp lépp lépp si biir terrain bi lay mujj tey man xam ne tey mën nañoo jaay bés bi mm-hmm. mën nañoo joxe bon exemple wax nit ñi tamit si ñoo ñëw si jàmm dal ci jàmm ñibbi si jàmm mais it am na loo xam ne ñi koy jëflante man xam naa ne barke alxuraan ko bëgg naa final bi dama ko bëgg mais xem nga bëgg naa ko mais xam naa ne joueur ma gën a pare. xeeb nga joueur Mouhamed yi. gëm naa ne samay joueur sax ñoo ma a pare. Mouhamed Aziz say joueur de. Aziz soo ko déggee ni muy waxee ne dafa xeeb say heures. xam ah, na say heures mu mu mu kii mais tam dëgg am na équipe ah. am na équipe man bu ma damay jóg mbëkk la. non am na équipe Aziz moom am na équipe ku ko bañ yëpp xam ni am na équipe waaye ku nekk xam na ni football moom reenu ñaam bi la quoi football moom dafa doy waar. waaw ah, Mouhamed discours baa ngi commencé changé de. gis nga euh, euh, euh, football bi def naa ni ni joueur pare noonu la suma joueur yi pare foofu. naa ni pression bi moom xam naa ni ci côté bi la loolu leer na ma loolu moom leer na ma nañ parce que man moom quoi ko puisse mën naa ni atteindre naa sama objectif ba pare quoi. non non xam naa ni waaw waaw jeex na kon kon defe naa ni ba ma amee victoire comme ni ko Mor may waxee sama premier match te koo xam am victoire tey nga ñëw remonté lii benn defet la ñu am defe naa ni euh, ay c'est Kosias xaw ma Namora. Kosias Kosias waaw moo ñu gagné par mal. ci ñi nga xam ne jour jour boobu mooy football bi demeewul woon noonu ñeneen ñi defe naa ne ay victoire la ak euh, su ma juumee am nañ match nul aussi waaw kon tu jàppoo waaye loolu loolu day montre rek day montre détermination joueurs yi day montre détermination booy yi nga xamante ne ñoo nekk di muyal a mayoo pour l'ASC Pastef ñu leen di félicité waat de passage wax ni daal ASC Pastef tam pare na pare na loolu naa ni match bi boobu dara neex xam naa ni ku yéex aussi doo am place mobilisation bi téléphone tey ñi nga xamante ne impliqué wu woon sax davantage ñu ngi commencé di impliqué wu di intéressé wu ci ASC Pastef ñi nga xam ñu dëkk ci koñ yi parce que bu ñu waxee nawetaan aussi affaire de koñ la affaire de affaire de quartier la donc ñuy woowaat waa quartier yëpp yi nga xamante ne ñu seeg les cinq quartiers Mouhamed Mouhamed eh, mobilisation bi ñëpp ñëpp ñëpp ñëw supporté si ay non da ngay yeggali moo tax nga taamu ne kaar yi buntu kër Aziz la ñuy taxawee ba tournal lan moo tax nga taamu si buntu kër non du gudd kër Aziz bon foofu def naa ni foofu la ASC nga départ rek tëli sori moom def naa ni foofu la ñu départ parce que amul fenn kaar mën a taxaw foofu aussi ay tëli secondaire bu ñu amoon tëli secondaire sa bunt kër la ñu départ mais comme que foofu la ñu am nag xam naa ni foofu la ñuy départ dem mais de toute façon euh, quel que soit alpha moom euh, match bi dana neex dana neex xam naa loolu moom. Ablaye mobilisation. benn dal xam nañ ko Mor Mbaye après damay ñëw si nga présenté mobilisation. Aziz nga xaar ma ñëw. Mor Mbaye trésor moom c'est man trophée yi nii instant yi sama kii dafay kii de Mor monsieur monsieur Mbaye non fii moom Rona sinon dañuy jóg sax ñu yëkkati trophée par trophée nga jox ñu trophée par trophée ñu xam. waaw. jógal jógal tout d'abord sax boo xoolee man dafa am lu ma bëgg a laaj ñaari ñaari ñaari présidents yi. ba xaw ma xool kan moo ci gën a joxe assurance ñoom ñaar ñëpp or la ñu takk. jour bi dina am ku ñibbee argent man dama xamul kan la ciy doon. léegi. li ma takk laa ñëwee ah. Aliou da xam naa takkuma kon. waaw kon man xam naa ne takkuma. moom xaalis man man kon laa tax. Ah, parce li tegu fii moom tegu na fi. te am na wax dëgg yàlla ñi ma bëgg ñu wékkal leen ko dinañ leen ko wékkal waaw am naa si yaakaar bu baax voilà ci ci ci présentation yi monsieur Mbaye man lan laa takk yow or nga takk mais oru cadet bi nga takk or moom or la rek dafa am or boo xam ne ne seigneur bi la comme mooy bi Mouhamed takk nii bu xoolee bu baax <coughs> mooy nekk or bu seigneur bi hmm. bi mu bi mu ñoo takk xalil waaw mooy nekk xalil waaw bii. waaw mais daal rafet na de. mooy nekk or pour euh, senior bi. Uh-huh. léegi yow bi nga takk nii. Uh-huh. mooy nekk or pour cadet bi. non uh-huh. non jëlal sama médaille. mais moo gën a tàkk quoi. moo gën a tàkk. or senior moo gën a tàkk. bu ñu xoolee or bi nga euh, argent bi nga xam ne laa takk nii mooy nekk argent bu argent bi ma takk bii nii mooy nekk argent pour euh, cadet bi.

bëriwul luñ koy gis ci nawetaan meilleur jeune joueur euh, après dinañ wax ki nga xamante mom lañ paré né meilleur jeune joueur bi. mais nominé yi nominé yi. Euh, nominé meilleur jeune joueur yi. dañ ci am euh, ku ñuy wax euh, Mamadou Keita nek ASC Passef am ku ñuy wax Massamba Wadi nek gardien ASC Dental. ñi ñuy wax ni ñëpp ay cadre montant lañ. parce que meilleur jeune joueur mom duñ wax un senior confirmé di la ko jox même bu fekkee ndere sax xale nga. mais confirmé nga trois ans senior duñ la ko jox. léegi am na aussi ku ñuy wax Ibrahima kamara ñu gën ko xam ci Yaama nekk ASC Bokk Jom bokk na aussi sur les nominés ak aussi Moustapha Thiam nekk ASC Jàmbaar moom aussi bokk na ci nominé quatre nominés la ñu am bu ñu xoolee bi nga yore nii mooy meilleur gardien senior dafa am meilleur gardien senior am meilleur gardien cadet. Aziz ak moo mënoon góor donc euh, meilleur gardien senior boo xoolee moom la Mourinho yor nii mm-hmm. euh, gis nañ ko boobu ki nga xam te ne mooy ne meilleur gardien senior boobu lay jël mm-hmm. euh, beneen bi dend ak trophée boobu <laughs> beneen trophée boobu ngay gis mooy nekk meilleur gardien cadet bi mm-hmm. boobu la waaw léegi aussi bu ñu xoolee am na bu ñu dendal nga gis waa ji mel ni kuy reprise. mooy nekk meilleur buteur cadet. meilleur buteur. meilleur buteur cadet. Ah. boobu lay jël. meilleur buteur cadet. léegi boo xoolee. Euh, boo xoolee trophée bële teg ci téléphone balaa mu wadd voilà euh, trophée boobu noonu ñuy gis mooy nekk meilleur buteur senior. Hmm. meilleur buteur senior nag mu nekk. Euh, euh, concurrence brute. Euh, Eric a 6 buts. Nous Sangare a 5 buts. Thomas, a 5 buts. Mustafa Cham aussi a 5 buts. Nous montrer euh, que les attaquants de la zone 12A sont très prolifiques. Parce que c'est rare championnat Sénégal sax da ngay 30 jours, ay 20 journées, meilleur buteur am ay 9 buts C'est une compétition boo xam te maximum tu joues 7 matchs gis nañ joueurs ils sont à 6 buts ñu gis ne dental am na 6 am ko am 5 Pastef am na 5 buts Jàmbaar aussi am 5 buts. muy montré que y a beaucoup de buts. cette fois ci dafa am particularité am. particularité d'habitude les meilleurs euh, buteurs. Mhm. demi-finale la donne yem. Mhm. ren ñu gis mu am ben affaire bo xamné peut-être xaw explication bo xamné bo xamné xam mën nga ci mën nañ ci ñëw parce que tamit xamuñu meilleur buteur bi Eric. 5 6 mu euh Amadou am 5. 5 euh, Thomas am 5 am 5. supposons tay ñom ñet ñep di jouer final. voilà ñom ñet ñep di jouer final. Mhm. supposons tay kenn ki am 5 su dugalee doublé léegi nag loolu moo gën a tax ñu ne la final dafa bokk ci compétition bi léegi exemple Thomas bu Pastef bu doublé dugal deux bi am sept est-ce que Raoul Eric ak euh, Am raw na leen su boobaa ça sera contradictoire nga jël meilleur buteur bi jox ko Eric te kii mu ëpp compétition bi yëpp kii ëppale ko bii c'est contradictoire donc loolu moo waral ñu né final bi dafa bokk ci ci compétition bi. supposons ñom ñet ñep ñu nekk à six bi. ñu nekk à bi ñu xol maintenant sur les passes décisives parce que yooyu yëpp nag sóoraale nañ ko ci. ñu xol qui a fait plus de passes décisives parce que c'est une commission sportive aussi. waaw non man mën naa laa wax Eric bi yim dugal yëpp ko kopaas. am bi yim dugal mën naa la wax ki kopaas. Thomas bi yim dugal mën naa la wax ki te bu ñu fàtte ne. match yëpp TPTV yor na ko. te xam naa Runa waajal na ko ndax wax ndax wax na ko. jàpp leen télé bu suba ñooñu ñu wax ñëpp di gis bii ñu dugal. ñoom dinañ ko tegaat. pour gën a montrer les gens xëy na nag final bi jàmp na ci jàmp boo xamante ne doon nañ sax bëgg a ubbi serveur bi gars yi wootee xam nga ku nekk wax diw laa bëgg. loolu weesoogul waa Pastef jëndal crédit bu bëri li nga waroon yóbbu ci sëriñ bi wàññi ko nga dem ci <laughs> wàññi ci jënd crédit <laughs> Aziz yow it wàññi li nga waroon yóbbu ci sëriñ bi waaw ah, kuréel gi nga war yow loolu petaaw jaruma <laughs> euh, ñu gis euh, trophée bi nga xam te ne mooy ballon d'or bii téel médaille bi ballon d'or bii nga xam ne néew na li ñuy gis trophée meilleur joueur mel nii lii yaakaar naa ci Messi rek lañ ko doon gisee wala ci Cristiano Ronaldo gis nga ni mu diisee. mbay bii kay ballon waaw c'est le ballon d'or. jël ma waay bu baax. Rona jëlaale mooy ballon d'or parce que. parce que voilà TVTV ballon d'or dañuy montrer que euh, zone 12A def na des progrès depuis quart de finale match yëpp am na ay trophée d'homme du match. di ci gërëm ñi ci jot a jàpp ñëpp bayal ñoom mbay si ñi nga xam te ne ñoom daam ñëpp nga xam ne nañ ay parrain homme du match bii c'est une particularité parce que amna ci open press bu ma dem duma sax tuddu tur benn joueur ni ma yàgg naa jël trophée homme du match meilleur joueur mais ay denk lañ ma don jox ak ay yenn trophée mais zone 12A ñeu mësa jox trophée bo xam mën ko tek diko xol euh, plusieurs années après di xamné li jëlon na ben trophée léegi bi mo nek nekk trophée euh, meilleur joueur mo am trois nominés ki ñi wax Abdoulaye Silla ASC Dental ki ñi wax euh, Mamadou Lamine Seydi ASC Dental mais aussi ki ñi wax Thomas aussi nek ASC passé. donc tous les trois finalistes ñi ngi ñu ci final bi donc c'est un match dans un autre match waaw journée beau, ku ci gëna confirmer confirmé am nga chance jël

bu leen tuddee trophée jàmm ji équipe bi gën fair play gën a gën a yaru ñoom la jox euh, trophée bi ni moy trophée équipe fair play ñaan ci ci ci yan critère lañuy lañuy jëlé équipe fair play aussi pour nit ñi xam quoi. d'abord dañ koy jëlé euh, sur les incidents yi nga xamante ne équipe bi causé nañ ko avant pendant et après le match yoriñ ko ci xol

yow xeexal ci coupe du mag <laughs> mais ku équipe équipe finaliste aussi bokkul ci ñi nga xam ne mën faire. jël Non, play. non si. mën na ci bokk. parce que c'est une zone de 15 ASC. C'est une zone de 15 ASC. man de maa ngi ñëw si jàmm si jàmm kenn du xeex ngeen dox. trophée boobu trophée euh, équipe championne en catégorie cadette. bi équipe bi nga xam ne jël final cadet bi. moom mooy am trophée bi nga xam ne moom la Mourinho yore. bokkul bokkul coupe meew yi ñu la doon jox de. waaw non bi coupe bi coupe bi lépp weñ la. waaw dëgg yàlla macha allah. ndax pareem kay foog ñu ñëw bi lépp weñ la. tey moom foog mu soppalee ko dem déglu bi. waaw ñëw ci parrain bi après. wax parrain bi ak aussi ce qu'il a bii mooy coupe cadet bi. boobu mooy coupe cadet bi. Mouhamed bi sax ku ko gagné su la neexee nga ne coupe senior laa gagné. waaw mën nga am mën Mouhamed mën mën na yóbbu benn coupe. boobu ñaar bi nga yëkkati nii nag. bii mooy. Euh, la coupe aux grandes oreilles. waaw la coupe aux grandes oreilles. waaw la coupe aux grandes nga ne ne ki jël euh, final senior bi euh, lay yóbbu. mais tamit dañuy def loo xamante ne xëy na daawuñ ko def ci nawetaan parce que cérémonie bu mel nii yaakaar naa mu ngi soog a am ci nawetaan ñu wax présentation des des trophées léegi en même temps équipe euh, Pastef nga xamante ne moom dem na final cadet mën naa daajil ñoom daajil bu la neexee. ma tàllal. daajil nga tàllal. Ndiaye nee na teraanga àddina bët. waaw. wala Aziz du noonu. mu xamee. waaw teraanga àddina bët.

ñoom ñoom. waay waay mais lan moo tax final xanaa mënul am équipe yu ñëwaat. instant ñii seeraat nañ leen lan moo tax final wuñ am na ñoo xam ne sax instant seen joueur yi. waaye. dootuñu dégg di jàmm rek. moyen bi mu yore nii mooy ASC Bokk Jom nga xam ne moom moo qualifié aussi. ñu waroon ñëw aussi ah, ñu waroon ñëw. en euh, ñoom ñoo moom euh, bu jaune bi. Euh, bu ñu xoolee. mbay sa parrain bi waane na yëpp ay bopp gaynde les def. waaw bopp gaynde la loolu mooy ay gaynde waaw ay gaynde la macha allah. maillot kon su ko neexee da koy yóbbu fii nii ñu dafa mise fii TV TV fii. ASC Dental. en catégorie senior. mais il paraît comme si que maillot yi ñuy yi ñuy hein. c'est parce que waaw dañoo respecté couleur parce que boo jëloon tey maillot bu bleu jox ko ASC Pastef respecté wu couleur couleurs. boo jëlee dental jox ko vert respecté wu couleurs. am ku nekk dañoo préféré respecter say couleurs pour euh, buñ la ko joxee après nga mun ko nga mun ko utiliser loolu loolu loolu mm-hmm. le parrain. waaw voilà. Euh, ci ci ci le le parrain monsieur monsieur mbay ñëpp wax nañ final yi jaar nañ fi jàll nañ gars ñu ne ah benn final moo fi des yéen dafa mel ne sax yéen da ngeen gën a muus yéen da ngeen bàyyi ba ñëpp tëj ngeen soog a tëj tey le parrain lii yombul ça coûte bon pour ne pas donner des chiffres je vais dire juste ça coûte des millions c'est que coupe bi tamit yombul coupe cadet bii rek. Mm-hmm. mën na doon coupe senior soo demee si ay zone mm-hmm. coupe senior lay doon. suku fair play bii nii man de su ma yoroon équipe sax man lañ yaru leen mën nañ gagné coupe bi. Mhm. mën na doon coupe senior. Mhm. sans autant manquer de respect à personne au mhm. de respect à aucune zone aussi. mën na doon coupe coupe senior. nga gis trophée yëpp tegu. révélation ñëw yooyu yëpp bu nekk loo xam ne tey pratiquement lu inédit la aussi ah yombul. kan la kan mooy parrain kan moo nekk seen ginnaaw. waaw parrain moo nekk euh, monsieur saalif kayta nekk directeur général u CICES ah moo nekk le directeur général u CICES moo nekk sunu sunu parrain moom lañ darajaale bés bi néanmoins nag am na ñoo xamante ne comme ku mel ni monsieur Bayalba, Ba moom la ñu sunu <coughs> équipe fair play maire équipe fair play moo jënd ko waaw euh, ki nga xamante ne mooy si moom lañ parrainé meilleur buteur Seigneur, ki nga xamantene aussi moy sunu grand sunu xarit mu nek grand abo mom lañ parrainé meilleur joueur seigneur. mo andi bi waaw mo andi bi euh, abo nag xam nga la motax tax abo andi bi euh. ma wax la ko ma dégg la ko tay euh. Rona moom fekkee na xam ne abo Aziz nee dañ Aziz nit ñi dañ naan dañuy jëwante ko Aziz mën na fubal mais abo mën na Aziz di fubal <laughs> lu leer la leen wax football la yalla mhm. aussi meilleur euh, joueur meilleur buteur euh, cadet Mbaylum. monsieur Mbaylum Cristiano Ronaldo meilleur joueur euh, aussi jamono aussi jox meilleur gardien cadet bi meilleur gardien senior bi après présent Paline. dina ma wax euh, kan la. ah Issa moo andi waaw dina ma wax kan la mhm. waaw. sa parrain sa parrain xam nañ lu baax. waaw non sa parrain moom xam nañ lu baax. macha allah macha allah. Aziz lii rek jar na Mouhamed. nga ne gars yi ren final naa mais déwén balaa ngeen di wax dara force da ngeen di final lii rek lii rek présentation bii rek trophée yi. même si que gagné woo si li si gagné enveloppe yi parfois sa dépense day ëpp mille fois pratiquement enveloppe bi ngay gagné mais lii rek fierté la quoi. dafa naa ni ku dem daal rek bette ngay am donc dafa naa ni ku gis yëpp jar na nga rayante ci terrain bi mën a rayante ci terrain bi pour mën a am victoire pour mën a egsi fii nga xamante ne moom la ASC Sega ak ASC Dental donc def naa ni am aussi ci pareil nga Saliou Saliou Keita wax léegi di DG euh, si sef bi suñu xarit bi suñu euh, bokk aussi ci mouvement présidentiel bi danaa euh, ni ko pare na ci zone yi bëri na pas mal daay tey pas mal de zone moo nekkoon seen pare loolu aussi ci appel di wax ni doomu dëkk bi aussi nañu fexe di jàppale ASC navétane ci final yi normalement parrain bi boo xoolee war ngeen jéggaan itam ay euh, kii waaye kuréel nag yooyu noonu di ko jëli parrain normalement parrain mënu na génn ci zone bi. ah ah fii. kon dëkkul doomu doomu département amul frontière waaye euh, lu mu la ñu kontaan changement am yow tey fierté lay lay doon ngay participer si final mais aussi motivation lay lay doon ginnaaw bi nga gisee trophée bi yàlla dogal mu ñëw biir Denta loolu la ñuy ñaan yàlla na ko suñu borom def. monsieur Mbaye euh, sànq Mouhamed pratiquement bon man dafa nekk lu lu bees yi man lan moo tax ba kuunu. waaw parce que tey ñun moom euh, bi ñu toogee en comité d'organisation bu ñu sañoon lépp li nga xamante ne ci aspect organisationnel la jëm ba ci sunu parrainage dafay des biir Tivaouane Peulh mais à ma connaissance aussi à mon histoire parce que bon c'est devenu un secret de polichinelle ko euh, nous ñu a pour son parrainage jarul tout doux tour mais rien euh, sur expression de besoin duñ ko matalewul woon te tamit nous nañu bés ba mais proposé pas mal de personnes ici à théon Paul. na présent à présent, à n'est nekk parrain au final. Hmm. mais Mohamed mi a moo nekkoon le parrain de la zone 12A. Hmm. te mënoon na ko Aziz mi toog mënoon na jël suñu parrainage final. Hmm. mais xëy na ci ki nga xam ne war a final bi di nekkaat euh, parrain au final bi. bu jox mais nag mais proposé des leaders ici à pour ñu jël final mais on dañoo euh, expression de expression de besoin le loolu parce que tamit euh, avons nañu déjà les tribunes des des supporters nous euh, ngi ko jël pour deux jours. c'est la zone 7 de Djahaï, nous jouons sa finale demain avec la zone 12A de Tivaouane pour nous jouer le 24. donc ñaari pour ñu gën ko mën a faciliter dañoo bokk organisation boobu ñaari tribune yooyu rek ça a coûté les deux hommes un million six cent ñaari tribune yooyu kese. déplacé ko indi ko loué ko ce sont des tribunes de quatre cent places mais euh, waa ji nit ñi dolliwaat na ci trois étages yoo xamante ne dina mën a yokk pratiquement ba six cent. personnes tribune yooyu noonu war na ko cent personnes tribune yooyu war na ko war na ko mën a jël donc Pastef am na tribune de sept cent personnes euh, Deltalosi am na tribune de de sept cent personnes ça nous a coûté un million un million six cent maintenant boo xoolee tey li nga xam te ne moo jëm ci tribune VIP yi tribune yooyu noonu euh, alhamdulilah am nañ ci boo xamante ne ñu ko moo ñu ko jox muy direction du matériel mais yeneen ñaar la DMTA joxe le président le signale comme ça du ne deux tribunes de la DMTA yeneen tribune yi nga xam moo fa des dañ ko dafa nekk en location yooyu aussi ça nous coûte cher ça nous euh, loolu aussi mu nekk loo xam ne dañ koy dañ koy dañ koy bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax. donc organisation Non, maintenant, maintenant, maintenant, maintenant trop. Maintenant parce que tous les VIP, elles seront au nombre de 5 pour avoir plus d'espace. Bon, les deux ils été à Aval, il y a 3 qui ont été à comme nous avons fait beaucoup de location avec la zone 11, ces trois tribunes nous coûteront 600 000 maintenant pour ces, pour ces deux journées. Donc, nous avons aussi le métier trop trop trop trop trop ci ñun waaw. parrain bi bi yomboon na sànq euh, ki nga oh. xam ne mooy monsieur Mouhamed Faye wax na ko bëri na ay zone yi nga xam ne demoon na démarche bi. bon yomb na yombul nous avions des facilitateurs ñu remercier leen de passage mu nekk euh, le journaliste monsieur Fall c'est-à-dire euh, Ablaye jaw numéro 2. ak le délégué Samba Diallo ñom ñoo ñom ñoom yombalal lolu mais aussi néanmoins amon na des leaders de Tivaouane pour yoo xam te ñu ngi doon dox ay démarches ñom ba déplacé dem ci ñom ku ci mel proposer nañ ko ku ci mel euh Ifa ñom Mamadou Ba ñom ba ci ñoom Alsane Diallo ñu proposer won nañ leen sunu sunu sunu sunu sunu final. boole budget final bi yëpp yëpp yëpp mu ngi tourné autour de 3 millions le le le budget final bi di di mais alhamdulilah xëy na bu même bu fekkee ne ne matalaguñ lépp mais l'essentiel ñu ngi ci donte ne des na lu bëri di profito di gërëm ki nga xam te aussi mooy Ablaye Diongo nga xam euh, il a confectionné des des blousons di gërëm aussi le président Mohamed Fay, qui a contribué d'une somme de deux cent francs ko zone en guise de des tenues y xam aussi dañ koy jox les délégués mais aussi ki nga xam te il a confectionné 30 blousons euh, plus un trophée du meilleur délégué de la zone mu euh, Abdoulaye Diongo nek économiste de euh, Namora yoré mouvement bu ñuy wax en soukali sunu gox moom aussi jàpp na ci bés bi à hauteur de 30 blousons plus un trophée du du du meilleur délégué. aussi jàpp na ko ci bés bi. macha allah message euh, Mohamed Abdou Aziz nga nekk si nga nekk si zone bi gis lii yëpp Mouhamed aussi tamit yow nga yow nga ne fi sànq monsieur Mor Mbaye wax wax na ko yéen ñaan ñëpp ku nekk mënoon jox tey li nga xam ne mooy. parrainage pour pour pour finale boobu non mais vu que da ngeen nekk ay finalistes donc du du du yomb tey ngeen gis ñu jéggaane ji loolu laa ko mën a tuddee aussi tam ñi jéggaane ñi est-ce neex na aussi ci xol nga gis ñoo xam ne ci fii lañ commencé def lépp ngeen dem jéggaane est-ce que neex na final est que saveur bu mu waroon am sax dina ko dina dina ko amaat en terme de représentativité ci wàllu parrainage bi. waaw bu au moins si ci ci finale yi mais tamit euh, ngàññiwuñ leen aussi parce que ku ci nekk aussi ak euh, fi nga tool rek noonu ngay demee te jamono nakari na nakaraay boo xamante ne tey yombul benn nit ñëw dëkku nii ay 3 millions 500 voire 4 millions donc loolu yëpp tam dafa am lu ko gën a waral boo gisee mbir yi gën a cher maanaam manque manque de tribune yi gis ngeen tribune yi lu mu coûté ay 1 million 600 et 4 mm-hmm. pratiquement euh, moitié kii bi yëpp la budget yëpp la ah ah donc loolu tey bu fekkoon ni am nañ ay tribune yu baax comprendre nga am nañ ay am nañ ay yenn garantie yu baax yi donc coût bi dina gën a wàññeeku ci parrain yi donc euh, di wax ni comme ni nga ko waxee rek maa ngi ku nekk mënoon nañ ñu parrainer affaire bi mais vu que ni ay président ASC yi nga xamante ne ñoo ñoo dem final du yomb du yomb si ñun parce que déjà yaa ngi financé si sa équipe mu ñëwaat aussi nga nar a nekkaat beneen parrain loolu doon woon doon lu yomb waaye ñu jàpp ni final bi dina neex incha allah am naa ni parrain bi di ma ko xamee moom dina doole. ñëw doole parce que xam na nawetaan xam na ambiance nawetaan xam na lan mooy nawetaan c'est pas sa première fois ñu koy ñu koy nominé comme parrain ci ci final nawetaan donc bés bi daal xam naa ni dina ala daw daal dina neex. Abdoulaye hmm. par rapport ak pare bi ñu dem jéegaane. waaw comme ni nga ko waxee nag yaakaar na final bi comme ni ko Mouhamed waxee ñu sañoon lépp duñ ko dem jéegaane parce que dañ naan ku sa dëkk tëgg. jarul ngay wàll yaane hmm. mais it soo déggul tëgg moom. su la neexee da nga aliyaane parce que soo taxawee nga ne su dul man du baax nit ki mën na jóge ji feneen indi leneen loo xam ne moo gën li nga dem parce que pare neex na nag mais nga pare ne ku xam sport dafa neex dafa am solo si sport parce que lii tey ku ko indi te àndul ak kenn waa zone dem jëfi ji ko ñëw indi ko ak mayo yoo xam ne tey ay mayo de qualité la kon dafa xam dafa am ñoo xam ne du ñoo am xam sport ba am yéene pare di si def parce que tamit parrain looloo ci neex te parrain bi tamit di ko saluer au passage parce que li mu def wax dëgg yàlla nit su defee lu baax nañ ko fësal ba àdduna ñëpp xam ko parce que pour beneen yoon ay moroomam mën a xam beneen bi nag maa ngi koy lancé zone bi parce que am na yoo xam ne waratuñu di daal tey ñu demee ba début nawetaan commencé xam na ne final ni war nañ teel a ut parrain ñu teel a xam parrain bi tamit mën a teel a waaj xam ne tey année bii man maay pré man maay doon parrain zone 12 à si 2024 bi ñu xam ne loolu yëpp duñu koy teel a pare parce que tamit dëkk bi métti na métti na boo métti boo xam ne tey am na somme yoo xam ne soo ñëwee tey tegal ko Aziz Fall danaan la ah wax dëgg yàlla am na leneen foo xam ne mën naa ko fa def wala am na leneen lu may xaar loolu tamit di si lancer message zone ñu gën si bàyyi xel bu baax a baax donc dernier tour de table rek euh, ci ci ci wàllum li nga xam ne tey mooy yaakaar naa ne mooy message yu ñuy yu ñuy yëkkati sa tamit waxtaan bi dégg nañ ko ci yar bi ak teggin ak ambiance bu jovial bi ñu ko bi ñu ko defee su amul rek euh, monsieur Mor Mbaye après ñoom euh, suñu lancé seen message lu ñu war a mën a terminer rek euh, waxtaan par rapport ak organisation finale te yaakaar naa ne aussi tamit sous le contrôle du directeur peut-être am nañ waxtaan boo ne mooy li nga wax sànq rek bu ñu war amaat encore suba pour gën a mën a mën a yaatalaat encore wa wàll boobu mu Mouhamed du ma ne tey li ngay lancé say supporters mais en tant que tey ki nga xam ne tey conseil technique au niveau euh, du euh, au niveau du ministre du ministère de la jeunesse nga war a nga war a dem euh, tey en tant que conseil technique foofu noonu mais aussi en tant que président président ASC mais en tant que aussi jeune bi nga xam ne waa Tivaouane dañ la dañ la jox nopp tey ba message ngay lancé ci nga xam ne mooy final bi di ñëw waaw li may wax ci final bi rek ci mujjiteel mooy di wax ni di woo ñëpp ah toute la jeunesse de la commune de Tivaouane Peulh d' abord euh, waaye rawatina waa Tivaouane Peulh ñi nga xamante ne ñoo seek zone 12A di leen woo di leen wax ni nañ ñëw seetaan si final bi en masse nañ ñëw ci yar ci teggin euh, équipe bi aussi ñëw football ci ci jàmm euh, que le meilleur gagne su ko defee kii li ma waxoon sànq rek ki nga xamante ne moo gagné. Euh, ñu félicité ko ki nga xamante ne aussi moom lañ gagné ñu encouragé ko pour que yeneen yi di ñëw mu mën a jël coupe donc di wax ni di woowaat la jeunesse de Tivaouane Peulh bi nga xamante ne moom lañ leen xamee dafa naa ni fii li ñu daanaka football yëpp nawetaan ni amul ay incident yu grave yoo xamante ne am na fii ci zone bi loolu aussi ñu koy sant yàlla suñu borom di wax ni final bi tam loolu la war a demee fet la nañ ñëw ka fooree euh, su ko defee kii gañe gagné. fii gagné aussi moo xam ni gagné nañ ko rawatina nag sama ASC aussi ASC Pastef <coughs> ma leen di woowaat bu baax di leen mobiliser di leen sensibiliser aussi ci li nga xamante ne moom lañ dem muy final bi ñu ñëw ci jàmm daf fair play football si jàmm ñu waat si jàmm bu ñu gagné alhamdulilah ñu xam ni ñoo gagné ñu ñaan yàlla nag ñu may ndam ñu may ñu ndam bu ñu gañee aussi ñu xam ni dañu war a gañee démérité wuñu parce que foofu mu am benn vainqueur ak benn vaincu donc loolu aussi nañ ci bàyyi xel bu baax a baax. di di di di nuyuwaat ñëpp def naa c'est le dernier tour de table. donc di nuyu le président de la zone muy Paa Alioune Diaw ci effort yi nga xamante ne mi ngi koy def waaye di nuyu aussi le secrétaire avec l' ensemble du bureau bi nga xamante ne mooy bureau zone 12A yëpp. di nuyu aussi sama euh, frère Aziz Fall di président AIC Dental koy nuyu bu baax ko wax ni di ko encouragé aussi ci li nga xamante ne coono bi muy daj ñu xam nañ ko. ci ASC Dent parce que ASC Dent tamit du ASC bu ndaw aussi quoi comme ni mu ko waxee sànq rek début yi métti woon na waaye tey yàlla dogal na mu egg final loolu rek dara la di ko félicité waat quoi di la nuyu aussi di nuyu staff yi ñoom di jooro naa ñëpp di ñaan yàlla suñu borom TPTV daal gën a jëm ci kanam merci. Abdoulaye Aziz ci wàll boobu noonu tey dégg nañ nga wax ak uh, say ndaw mais aussi tamit nga gën leen soññaat aussi. waaw yaakaar naa loolu moom duñ ci taay benn parce que. tey soo jiitee ay doomu aadama yaa war a mën a joxe bon exemple parce que loo gis rek chaque jour dañu koy wax suñu ay dëkkandoo la ñuy fubale tey ñun dëkk bi ñun ñoo ko ëmb tey suñu ay dëkkandoo la ñuy fubale lépp nañu dem fubal ko si fair play parce que ñun dugguñu si biir terrain mm-hmm. tey ñi nga xam ne tey ñooy jokkonte suñu duggee si biir terrain ku nekk li nga war a jëf rek di ko jëf di woo ñëpp tamit di wax ne zone bi dañoo war a mën a gis mobilisation de mm-hmm. forte mm-hmm. di wax Tivaouane Peulh nañ ñëpp génn dem seetaani parce que lu am solo la waaw dental tamit damay wax mobilisation bi nañ ko waaj bu baax a baax quatre heures war nañoo mën a fekk estade ñaata kaar ngay yow quatre heures war nañoo fekk estade dental léegi li may wax rek xoolatul kaar parce que tey lu ñuy santaat yàlla bu baax parce que tey da ngay ñëw fekk estade bi fees dell waa dental soo xam sax fu ñu jaar kon loolu sant yàlla estade bi yaakaar naa doo jotee juróomi jeego sax dugg si stade bi léegi kon loolu sant yàlla di woowaat ñëpp tamit di wax nañ si ñoom gën a jàpp stade bi nag na saf bu la banaa na saf bu la banaa maa ngi si woo supporters yëpp na saf bu la banaa parce que tamit mobilisation dental su ñëwee dañoo war a xam ne dental ñëw na fête la final la mais tamit final la boo xam ne tey duñu motiver joueurs yi pour ñu mën a gagné bis bi di si woowu ñëpp ñëpp tamit di remercier ñi nga xam ne tey ñoom ñoo toogoon ci taabul ku ci mel ni président Mohamed parce que sànq wax na ko ci biir kàddoom li mu def ni équipe defagu ko fii à part saf ko muy yóbbu cadet ak senior loolu suñu borom moom moo ko defal duñ ko koy nangul bu baax a baax di ko ci félicité tamit di ci félicité équipe bi yëpp comme ni ko waxee rek Pastef tey ak Dental ay dëkkandoo la man démb rek waa Pastef am na ñu ma si woo du ñuy kaf du ñuy foo du ñuy reetaan parce que loolu mooy sport. Hmm. maa la mën yaa ma mën maa la mën yàlla na ma yàlla mbay ndam naa ma yàlla na ma adduna noonu kese la amul leneen. Hmm. waa di remercier tamit moo bu baax a baax wax dëgg yàlla moom li may wax rek mooy jàmbaaru Faa Alil. Hmm. waa jàmbaaru Faa Alil laa koy wax dëgg yàlla ku baax la ku tabe tamit te mënu def loo xam ne tey zone bi tey gis na si boppam bu baax a baax tey moo ubbil na ñëpp tey ku ko soxla dalay woo loo loo bëgg tamit laaj soo ko laajee mu tontu la parce que nit mënoo xam lépp li ko si remercier bu baax a baax ak coono yi nga xam ne tey mu ngi koy daj te nuyu tamit président Paali wax dëgg yàlla ñëpp xam nañ li nga xam ne tey mu koy daj ci zone bi man dama naan lépp lu ma xam si sport walla si xeex wala ci xuloo wala lu mënta doon moo ko jàngal mm. <laughs> moo ko jàngal li ma xam si sport moo ko jàngal wax dëgg yàlla bu muy doon président laa doon président supporter ba tey fi ma toll nii kon santaat yàlla la bu baax di nuyu ñoom Rone ñoom Ibou di wax émission bi macha allah sant nañ bu baax a baax di wax taabu bi taaru na asalaamaaleykum. monsieur Mbaye xam naa ne ay actuellement président moo ngi toog à côté mais mu ngi lay mu ngi lay kii benn deux minutes rek peut-être suñu ronaa mayee suba ñu am beneen waxtaan bu ñu bu ñu war a amaat aussi. waaw incha allah. directeur de programme moom dina ko dina ko maye suba incha allah dinañ am beneen euh, table fii euh, ñu ngi ciy xaar ASC Bokk Jom mi nga xam ne moo qualifié en en finale cadette aussi dinañ gën a ñëwaat ci disposition pratique yi. pour pour deme incha allah. aussi di leen wax ne leen. te aussi euh, demain dañuy def dañuy ubbi antenne bi aussi. waaw demain dañuy dañuy ubbi antenne bi incha allah pour ASC yi gën ko waajal. pour les nominer meilleur joueur meilleur jeune joueur meilleur gardien et euh, meilleur buteur yi coup ko pour pour ñëpp mën ci jàpp euh, di waxaat rek ne euh, final bi dafay nekk final bu neex bu ñuy jouer ci que le que le meilleur gagne ci loolu te ñu football dafa nekk un moyen de communication pour xamante les lépp looy jaay ci produit boo ñëwee ci sport dafa war surtout nag nga collaborer ak télé boo xamante mu ngi survoler commune bi la télé qui vous allume instant y yaakaar naa TP TV taal de dëkk bi yëpp mu ngi fépp kon euh, di waxaat aussi ba on ouvre nos portes euh, à ceux qui ont des entreprises et, et qui sont dans la dans la commune ou bien dans d'autres endroits que ku am tay publicité mën nga djégé la télévision loolu ngeen géré ko avec la télévision mais aussi ku ci bëgg am tay ben bâche wala benn euh, ay flyers yu bëgg distribuer au niveau du stade koku mën nga ñëw contacter ñu directement su ko défé nga ñu mën la wax modalité yi parce que dañuy gis euh, aux alentours du terrain ñu koy prévoir des espaces publicitaires yo xamante ne euh, bu fekkente ne kenn dong lañ ci may. moo xam te ne bu ko neexee tekki ay baasam yëpp ñëw takk fa muy TP TV eh, ci collaboration bi ñu def mais su paasee TP TV képp ku yor produit rek nekk fii ci commune bi wala ak li ko wër boo ñëwee eh, nga wax ak ñun mun nga koo takk jàllale say jàllale say publicité incha allahu rabbi donc. Euh, incha allah foofu la ñuy yemale kàddu gi ba suba incha allah. waaye di leen jox rendez bu xam naa peut-être euh, suba rek suba moom incha allah xaw ma day bañ xaw ma du bañ dama koy diri mu ñëw toog ci plateau bi mu wax ñu ñun lan lañ prévoir c'est parce tamit euh, pour pour vous rassurer rek. peut-être final bi seen final la bëri na luñ ci luñ ci waxtaan zone 12 moo organisé mais aussi tamit TPTV dafa bokk ci membre d'organisation boobu noonu c'est parce tamit quand on parle de. qu'il y ait wax football moyen de communication mais aussi tamit euh, média moyen de divulgation d'informations aussi donc nous euh, ñu war si am taxawaay am solo rek euh, ki directeur des programmes depuis pratiquement monsieur Mbaye. bon comme nous wax le football nous avons des associations sportives et culturelles. jour 24 décembre 24 décembre on aura des artistes invités et sax pourquoi pas ci artistes invité yooyu suba ñu am ci kenn fi ci plateau bi. Mhm. pourquoi pas mhm. mu nekk ay artistes yoo xamante ne ay artistes de renommée lañ parce que Tivaouane Peulh moom. yaakaar naa miin nañ léegi yoonu soorana ak yoonu Grand Théâtre mhm. macha allah léegi yaakaar naa suñuy artistes dañ koy feesal. kon donc ku ñëw le 24 décembre di nga seetaan football mais di nga seetaan concert. non foot dañuy def concert lay def 16h le final cadette bi di démarrer. waaw waaw ba 17h 17h30 maximum. Euh, le terrain dañ koy jox aux deux aux deux équipes muy ASC Dental ak ASC Passif. ñu def leurs échauffements dans l'enceinte Nous xam tane lo am dañ ko euh, ci match yi mag Ligue des Champions yoy ñu xam préparation yépp fa lañ koy défé donc di wax coach Alpha ak coach Ba il y aura des des groupes de danse mais aussi des artistes qui avant le cours le cours est prévu pour 18h30 euh, Inch'Allah <laughs> mhm, mhm. voilà ñu ñu mu nar am euh, benn dispositif bu particulier boo xam ne war nañ ko am aussi tamit euh, mooy waa TPTV je pense que depuis pratiquement plus euh, d'une semaine ki nga xam ne mooy le directeur de programmes ak directeur bi ñu ngi si ñu ngi si waxtaan lan la ñu war a mën a indi pour pour pour loolu noonu di leen xam naa ne instant ñu may dàq wax nañ dëgg yàgg nañ trop dañoo war a tëddi Euh, di leen jox rendez-vous rek euh, incha allah suba euh, pour mën a présenter li nga xam ne moom mooy am jour final tout ce qui est aussi tamit ubbi leen li nga xam ne mooy antenne pour ngeen mën a participer ci nga xam ne mooy mooy final bi ci yar ak ak teggin ci loolu rek di la di la gërëm Mouhamed ci ci disponibile bi aussi tamit heure bu ñu la wooyee nga nga ñëw même si que cette fois-ci c'est un peu particulier ñëw bi danga ñëw pour nekk président ASC tey ñëwuñu pour xuloo donc mu nekk loo xam ne tamit di la si sant di si gërëm aussi tamit. Aziz moom bon euh, peut-être man du ma ne dama koy sant dama koy gërëm sonal naa ko trop ci ci lépp mais dañ ko séq mu nekk frère aussi tamit moom ci ci ci ñun moom xam na man xam na di leen ñaanal rek yéen su fekkee tamit moo gën ci seen ASC ku gën ndam bi gën ci ASC am rek yàlla na ko jël mais tamit ku euh, ndam bi gën ci nga xam ne mooy Tivaouane Peulh yàlla na ko yàlla yàlla may ñu fubal ko ci fair play ñëpp dem stade ci yar ak teggin sangu solu solu xeeñ bu neex dem seetaani football ñi supporter supporter ñi football football match bi jeex ñun ñëpp ñu ñëwaat si biir kër gi c'est vrai Tivaouane Peulh luñ ne yaatu na mais yaatuwul yaatu boo xam ne tey ay xaj na fi te fu ay dugg rek ñaari famille laalante te su ñaari famille laalante suñu xoolee ba ci biir ñoom ñoo bokk deret donc jaratul ñuy laalante jërë ngeen jëf rendez-vous suba Rona jërëjëf Ibrahima Khalil njool mu ñuul président ne macha allah boobu ba maa lay xaar mais suba incha allah xanaa ni ma ko may ba suba